boo xoolee Baye Mamoun daan na fa liggéey liggéey bu am solo te mu ngi continuer di ko liggéey ngir jëmmal ak dëgëral li nga xam ne sëñ Mamoun tegoon na ko. Euh, mu nekk nag une boo xam ne internationale la ku taxawaloon l'islam la ku doon liggéey ci pays bi la ku doon euh, dëgëral li nga yaakaar bu baax a baax a baax waaw loolu loolu yëpp moo ko liggéey kon mën naa wax ne sëñ maa Mamoun Niass nekkoon na un homme multidimensionnel boo xam ne ci l'islam taxaw na ci social taxaw na ci politique taxaw na kon kooku ko ñàkk di nga xam nga ne ñàkk nga lu rëy waaye nag ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla xaree ko àjjana yàlla tabal ko ci ajana àjjanay firdawsi li ma gën a marqué ci moom mooy nit koo xam ne ku fonk xarit la ku mën a sàmm xarit la bëggul kenn mer euh, sëñ Mansour bëggul kenn mer ku fonk xarit la te loolu dafa bokk ci li nga xam ne qualité yu nitu l'islam nitu diine nit ku yàlla baaxee war a am ndax kóllëre ak fonk xarit bokk na ci qualité yi gën a fort ci nit boo ci boolee nag liggéeyal l'islam say waajur gërëm la maa ngi toog ni dendeeg yaayam te maa ngi dégg ci seede yi li ko yaayam gërëm baayam gërëm ko ko macha muy def social ci population nekk ko am yërmande nekk koo xam ne ku tabe la ñun ñëpp ko ko kon li ñuy ñaan yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam yàlla na ko yàlla xare ajana te lim fi bàyyi yàlla na ci yàlla teg loxo ñu ngi gërëm ñëpp di jaale ñëpp. waaw mës tey bi de gannaaw ma sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm, di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm Mawlana Cheikh Ibrahim gërëm Mawlana Cheikh Mamoun Niass di sant yàlla rek. ndax doom la joo xam ne euh, ñépp jàppale nañ ma tey dégg nga moo tax ma sant yàlla ndax doom ju baax la doom ju am yar doom ju am teggiin doom ju fonk ay waajuram doom ju ma bëgg ma teral ju ma suturaal te noonu la mel ci mboolem ay mbokkam ak mboolem ay am di jàmm waaw am na yar am na teggiin tabe na jullit àqan la taalibi baay àqan la nit ku baax la daal ci gàttal maa ngi gërëm madame la maire Mariama Sarr di sun di ministre dégg digga di ko ñaanal yàlla nga ndax Cheikh Mansour xaritam la soppeem la dégg nga ñoo bokk di liggéey dégg nga ci parti bi di jàppale mag euh, sun président Macky Sall dégg dëgg dëgg mu ngi taxawaan taxawaay bu rafet ci Cheikh Mansour ak ci bis bi maa ngi koy ñaanal yàlla wallaay sant yàlla rek sant yàlla rek moo tax jooyu ma ko jooyu ndax Cheikh Mansour wax dëgg yàlla ah, lim lim am nii dégg ngay yaayam jàkkaarloog gis li la yàlla may nii dangay sant yàlla maa ngi gërëm ñëpp ci seen taxawaay wax dëgg yàlla waaye nag moom moo ko liggéey dégg nga Cheikh dafa baax wallaahi sax Mansour mënu ma koo fay mënu ma koo fay gërëm naa ko sant naa ko maa ngi koy seedeel yàlla ak yonentam maa ko jur waaye gërëm naa ko sant naa ko bi ma yëgee noël bi itam xamaa doom moo ñëw mu nuyu ma ko ana Cheikh Mansour nu mu def mu ma alhamdulilah mu ngi tane mu daal di